ci lañu jaaree ginnaawam euh, dóor ko jaasi ci loos jaafar door a jaaxaan drapeau bi daanu borom borom samax ma muy mahlan wa in xamalta raayata qawmin fa kun ka jaafarin ñu ne ko nu mu def mu ne aw da wala tastariqi ñu ne ko jaafar nu def mu ne xat xuti at yaddaahu yawma mu'ta walam yaddaha li kamiyi sawwiqi ñu ne ko kookay kan mu ne lakinnaha ihtadan laha hubban laha fa yaalahu min sayyidil muwaffaqi waaw borom mahlan mu ne ku ñu dénk drapeau lislaam war ngaa jël jikkay jaafar war ngaa gore ni jaafar ñu ne ko ndax lan mu ne jaafar drapeau l'islam la téye ñu dog ñaari loxo yi muy sotteeku ni robinet taxul mu sànni ko fexe na ba wut ay pexe jiitu drapeau bi ci suuf nank ko ak ay ak jógaat taxaw sàndi bopp ba ca kaw keroog ba ñu ko dóoree ci ginnaaw nekk la doore ñàkk drapeau bi mu daanu ci suuf kooku rakku Seydina Ali ibnu Abi taalib la yàlla yónni malaaka ne ko demal ci ruuxu Jaafar nga tegal ma ko ci palaatu wurus laajal ma ko ruux bi lan la bëgg man yàlla ma defal ko ko keroog ba malaaka bi tegee ruux ba ca palaatu wurus laa jaafar ruux bi loo bëgg yàlla nee na loo bëgg mu defal la ko jaafar ruuxam ne ko neel yàlla mu delloo ma ci kaadaaru nit may may continuer di xeexal lislaam ci jàmbaar yàlla ne ko mënatul ne yàlla ne ko mënatul ne daf ko mujjee jël boole ko ci malaaka yi doxal yàlla service yonent bi sayyiduna muhammad daan na toog ba ci yàgg siggi xool ci kaw ne wa aleykum salaam saxaaba yi ne moo lu xew nabi ci kaw la fayee nuyoo di nabi ne leen jaafar a ngi nii jaar fii ànd ak malaaka yi di doxi ji sarwiisu yàlla moo ma nuyu man sayiduna muhammad ma fay ko alin ibnu abi talib keroog bi ñu toogee ci jotaay bi yonent bi doon wax bëgg na ñett ci àdduna Aboubacar wax bëgg na ñett ci àdduna Seydina Omar wax bëgg na ñett ci àdduna Ousmane Kazalika àllin ba mu jëlee xoolal ñett yi mu wax ni mu mettee sëriñ Mansour Gueye xoolal àllin dafa ne saw mu fi sayfi lii metti na de bàyyi ba mu mbóoya ngelaw li aal di dóor bu baax ngelaw li di ëppee côté bu ne poussière mi bëri man Seydina Muhammad may wooral yàlla foofu la woor gën a méttee xanaa bu mbooyoo woor ci lay gën a mett ndax tur ñi day wooy koŋ waaw lor wooy wan sax pour yóbbu ko ci biir suturloo ko doo ko am ndax mbooya àllin nee na fa laa bëggee nekk di woor man Seydina àllin wa darbu bayna yadayka bi sayfi mu ne bëgg naa téye sama jaasi toog ci keppaaru sayyiduna Muhammad ku jóg jëm ci nabi man sayyiduna Alin ma jóg jàkkaaroog yow boobu yombul de bi ko ñetteel mooy iqaamatul xuduud mu ne ku xamul fooy yem ak nabi man Alin ma xam fi nga war a yem ak nabi mu ne boobu boobu ñor na ma lool man sayyiduna Alin boobu ñor na ma lool man sayyiduna allin ku xamul fan nga war a eh, yem ak nabi man allin ma wan la fa nga war a yem ak nabi te def na ko keroog Omar ibnu Wuddi ba mu songee sayyiduna Muhammad ak saxaaba fekk leen ñu toog comme toogin bu jekk bii mu rëppatal fasam dem ba jeg jege sayyiduna Muhammad ak mbooloo mi mu àndal mu koñe fas bi fas bi sa sëkkatal sayyiduna Muhammad suuf mu ne leen dangeen ni ku dee ci yéen dem àjjana ku dee ci ñun dem safara na kenn jóg gaawe ma yóbbu ma aj safara mbaa kenn jóg ma gaawe ko yóbbu ko àjjana daa kii ñime na fa mu jëm de wala daa xamut li xew mu ne yéen ñëpp laay waxal nekk kuy waaj a jóg rek nabi ne ko toogal Omar la muy waaj a rek nabi ne ko toogal Omar la mu ne xanaa ñime leen dema ni képp ci yéen na jóg yóbbu ma safara mbaa jóg ma yóbbu ko àjjana waaleykum asalaam wa rahmatullah ay dara mu ne ñaar yooyu rek laa bëgg a dégg Seydina Ali ne bëxër ñit jóg taxaw nabi ne ko toogal Omar la am na téere yu bind bil alif am ñu bind bi la ayni dafa am ñu ne Amar la Amar ibnu Wuddi am ñu ne Omar ibnu Wuddi ixtilaaful ulama rahma wuuta borom xam-xam yërëmande lay jur mais téere yi wuute nañu foofu am ñu ne Amar la am ñu ne Omar la waaye keroog ba mu jógee rëppatalaat fas bi ba àgg ci keppaaru Sayyiduna Muhammad mu koñe fas bi fas bi sëkkatal na bi suuf ak basaa yiñ ko lalal Seydina Ali ne bëxër ñit jóg taxaw nabi ne ko toogal Omar la ku mu dajal balaa deux minutes mu rey la te yow am naa yaakaar ci yow bokk nga ci ñiy taxawal diina bi ëllëg yow Seydina Ali toogal ba mu ñetteelee la Seydina Ali ne bëxër ñit jóg taxaw nabi ne ko toogal amar la alin samp xalimam ne bu dee amar la anna aliyun wa nisbati bayyinul arab du bay na arab de bayyinul arab abu imaamayni kiraamin barara wala ila naari jahut lantara bi darbati min sayfi saydna allin jóg taxaw ne bu dee kii omar la ku mu dajal mu rey ko man la sayiduna allin góor gi xool allin allin dugg ci biir maska wu génn taxaw góor gi ne duma ma xeex ak xamul amaana bi nga duggee ci biir keneen a génn ci biir mais du yow yow mi doon wax ak man sànk góor gi ne ko balaa maa continué ak yow sax yow ku la jur Alin wax ko ab ab Abu Taalib moo ma jur mu ne ko sa baay sama xarit la du ma xeex ak yow Alin ne ko weesu na buñ jógee pour xeex rek xeex rek duma dellu ginnaaw muk góor gi ne ko tee ngaa yeewi sa bopp dem kër ga xool sa bopp ba mët góor doora ñëw wax ak man Alin ne ko mën mët góor moo tax ma jàkkaarook yow di wax ak yow waxal leneen. àllin siggi xool góor gi ne ko yéen yéefar yi tàmb ngeen buñ leen mënee ci xeex rek ngeen war seen fas yi daw góor gi di wan àllin ni duma koy dawal góor mu xëcc làbbi ba fas bi ngaang mu dam damm ñeenti tànk yi ne ko duma la daw mukk àllin taxaw rek na bee ngi taxaw na bi jaaxle lool ndax àllin bokk na ci ñi koy taxawalal diina ji te loolu ci mission bi la bokk ma ne mbër muy bëre ji maamu Serif Ibrahima ay dara yor sa cummukaay boo daanut nekk dëgg dëgg nekk Seydina Alin nara song ak Omar ibnu Wuddi jërëjëf Seydina Alin nara song ak Omar ibnu Wuddi Seydina Muhammad taxaw moo yore ñaan ya laata ñoo songo góor gi ne Alin yow ba noppi xam naa ne Abu Taalib moo la jur yow a kan dënnam ne ana Aliyun mu ne ko foo askanoo mu ne woon nisbati sama askan bayyinul arab fës na ci biir araab yaa ko bëgguta xam ndax jàkkaaroo pour xeex waxal leneen mu ne ko wax ma ba léegi xamaguma yaay kan mu ne abu imaamayni usey ak useynu ak asan may seen way jur abu ni kiraamin ba noppi tedd nañu bararaa ñu baax lañu ñooñu may seen way jur mu ne ko kii nga doon waxal sànq di ko sëkkatal suuf doomam sama soxna la moom lay ngege naayoo muy fatimatu bintu rasulillahi mu ne ko ah, yaajur jur useyn ak asan alin ne ko waaw yaxruju minhuma lu'lu wal marjaan waaw góor gi taxaw xool allin allin xool ko dellu ginnaaw weesu na mu xool allin allin xool ko dellu ginnaaw weesu na nabi la tàllal ay loxoom di fàttali yàlla ponkal yiñ ko reyal ci xare yi pour yàlla dimbali ko ci àllin mu fas góor gi nabi tàllal ay loxom naan xat axasta anni xamsata yawma uxuut wa axasta anni ubaydata yawma badar wa axasta anni jaafar yawma muuta ay waay yàlla kii laa fi dese moo ngi lewatoo bu fi yemee diina yem fi de waay waay rabbi laa tazarni fardan wa anta xayru waarisiin keroog nabi dafa ñaan ba kaala ga rot Ababakar forkaalu nabi yëlub ko tegaat ko ci mbaggam ne ko yàlla dina la sagal yow doo ko yàlla di rusloo nabi ne teg àllin ak góor gi jaxasoo ñu jaxasoo ba poussière mi ñu jógal muur na bëtu nit ñi ba kenn mënta seen àllin seen góor gi ñu xeex ba seen jaas yi damm ñu songante ci xeej ba kenn gisatul xeejam ñu euh, Baye Ibrahima Sakho nee na tuluñu waaye ñu mën a moytu lañu waaye saaxoo mën a nettali mun a ñu waaye ñu mën a moytu lañu mun a ñuy xeex poussière may jolli poussière may jolli ba gisatu ju kenn nee na ñu jékki-jékki poussière may dal di dal di dal di dal dal di dal ba ñu mën a ràññee nit ak nit nee na seen nañu àllin mu taxaw ci boppu góor gi ne allahu akbar ndaka dagg na bopp ba bu yàgg bàyyi saaxu nee na diggante foofee àllin daggee bopp góor ga ak fa gaaña taxaw àllin laalul suuf alaaji bu saaxu nee na ca kaw lañ ko yëkkati di daw di jëm ak moom ca sayyiduna Muhammad bàyyi saaxu ca xoromam nee na ñiy football fa lañ ko jëlee bu géer bi dugalee bii rek ñu toj ko ca kaw di daw ca tuus ya mu ne fa lañ ko fabee àlli ko njëkk a def kooku jàmbaar la keroog bi ma génnee ci xisa boobu ma ne la àllin moo toj xaybar xaybar gott la goo xamante ni yéefar ya fa nekkoon dañoo dëgëroon bopp xam nga nit ki gën a dëgër bopp ci déglu waaraate mooy ki ngay waar muy macca tàngal di tàkkamtiku di xool fële xam nga kii li ngay wax ñoru ko yéefari xaybar noonu la meloon mais keroog ba fa àllin ibnu abi àggee porte boo xamante ne quarante waxambaane ñoo ko daan tijji chaque suba quarante waxambaane ñooy téye porte yi tijji ko wala du tijjee ko ñi ëpp doole ca dëkk ba laa wax de ñoo koy tijji sak suba keroot bi ci àllin àggee dafa gàll ñaari porte yi ak loxoom porte yi daanu nele àllin xool loxoom bëgg yéemu xelam delluwaat ca yàlla mu ne ma xalaatu baabal xaybara bi quwwati jasadaniya walakin bi quwwati rabbaniya mu ne buntu bii yëg naa ni ni ñu waxee ni ay waxambaane ñoo ko daan tijji sama force bopp tijjiwu ko billaahi kàttanu yàlla rax na ci mu delloo lépp yàlla mu dugg jàkkaarook waa xaybar abbu big ak fooy naan al yawma ahmi wa jismi wa diini bi saarimi yalma u fil wa bi sirri taaxa fekk na bee ngi taxaw wa bi sirri taaxa Moustapha Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko kii nga taxawal nii di gëñ kan la mun a zil izzi wal ifdaali wat tamkiini yaa ayyuhal muxtaar nabi gestu àllin mu ne ko absir yaa nabi fa anna aliyun saahiru li diini yaa xutbatal muxtaar yi keroog béyit yooyu fa la ko bindee allin taxaw siggi xool waa xaybar ñu xool ko allin ne yaa axlal xaybar ñëpp a xool ko mun a udxulu diina nabi wa illaa sa aktulukum bi sayfi ñaar yooyu rek laay wax udxulu diina nabi wa illa sa aqtulukum bi sayfi kii préparé na pour xeex Alioune dafa jóg dugg xaybar taxaw jàkkaarook ñoom ne al yow ma tey ji jóg naa pour xeex ahmi na aar diini sama diini wa jismi ak sama yaram naa xeex ak yéen ñëpp te jaasi duma laal kon aar naa sama yaram dina aar sama diine ñiy tuub tuub ci yéen bi saarimi asaarim dana firi jaasi sayfu dana firi jaasi bi saarimi ci sama jaasi bi yal ma umu ngee melaxati fil yamini ci sama kota ndeyjoor mu gestu xool na bi ne ko yaa ayuxal muxtaar Moustapha ca ca ca ca ca kanama ngam gu leer ga mu xool sayyiduna allin allin bég allin ne ko absir ya nabi fu allin daan xeexee rek nabi du am jàmm ba allin pare ndax gëm ko ak bëgg ko ak xam li mu doon mu ne ko nabi bégal ñii duñu dara ci man àllin bu sampoon làmb kenn du ko simpi gaa yi dañ koy romb nii di ko xool àllina ko samp de bàyyil foofu kenn du simpi ndax xam nañ ni mu mel te jaasim boobu kenn tëggu ko maa ngi ñëwaat fële jaasim kenn tëggu ko moom naa àllin nabee toog ba ci yàgg daal jaasi bi jóge ci kaw daanu ci tànku sayyiduna Muhammad nabi ne duma par parloo àlli na gën a suufa ci saxaaba yi Aboubacar kaay jël jaasi bi Aboubacar song dugal ci doolem yëpp jaasi bi mënul jóg xam ngeen ne Aboubacar ko bari doole la mais def na ci itam yëpp jaasi bi mënul jóg ci mbaggi nabi ci tànki nabi Sayyiduna Omar jóg dugal ci ñaari loxoom jaasi bi jógut Ousmane am kersa pour jóg Seydina Alin dafa ni bëxër ñit jaasi bi yëkkati ko ci tànku nabi muy ñëw jaasi bi song ko ne jàpp ci loxoom Alin téye ko yëkkati nabi ne ko huwa saahibuhu kiyey boroomam moo tax waykat yi juumuñu de nee nañu bu jaasi jógee junni daanu Seydina Alin jaasim noonu la meloon dem na ba ci xare waxoon naa la ko fii Alin day nekk ci xare ñu di ko wanante dana changé yére six fois wala sept fois ndax buñ ko ràññee dañ koy wanante moytul àllin la moo ngi noonu daa saa yére mooma de ñëpp dañ koy wanante ci xare bi àllin demoon na ba am problème xeex ci xare ndax jàmbaar ku mu jub rek kooku wan ko moroomam saxaabay euh, euh, euh, yéefar yi ñu doy waar lañu ñu dem ba dajaloo ñu ne àllin comme karamallahu wajha du gis ay awra ñun bu ñuy dem xare nañ sol sabidoor rek jarul tubéy ku mu jub rek nga ëñ ko ko mu dellu pexe boobu lañu mujjee wut ak ñoo bon mu ne comme karamallahu wacca du rey kenn jeex na ñun jarul sax ñuy war fas ndax balaa nga ëññee ci kaw fas bi ñu ëñ la nga daanu yow ñun nañu dox ci suuf ku mu jub rek nañu yëkkati yére yi ndax karamallahu wajha alin dem ak saxaaba yi dem ak Seydina alin dugg ci biir xaybar taxaw ne eh yaa axlal xaybar eh yéen waa xaybar ñoom ñëpp ñu siggi mu ne li ma bëgg mooy ñaar ñëw leen udduxulu diina nabi ngeen dugg ci diina sayyiduna muhammad mu ne boobay première bi wa illaa bu dul loolu sa aktulukum naa leen rey ñeen ñëpp bi say fii ci sama jaasi mu ne maa ngi nii man kese nekk yéen ñëpp ku bëgg jàmm nekk ñëwal sukk ci wetu nabi ku bëggul jàmm xaar ma foofu ñu jàkkaarloo yéen ñëpp sot sot leen ma nekk àlli nay jàmbaar ak boroom këram dañoo nekk ci néeg bi di waxtaan ba ci yàgg liir bi ra seen doom ju ndaw raam génn ca ëtt ba fekk fa benn gaynde mu tëdd xale bi nekk ca gaynde ga comme bët yi dafa xonko coy mu jël bant di ko jéema a beneen gaynde gi ne ko waaye doo wax ci kii balaa moo yàq sa bët bi mu ne xawuma bu ma xamoon du def lii daf ma xamut bàyyi ji ne ana ana xale bi soxna si ne ko seet ko ci biti ba xam mu ne tëll rek jàkkaaroo gaynde gi ne eh, gaynde gi ne kee ma xam kii xawuma kee a xam xam nga boroom kër gi nu mu def dellu ci biir naan soxna si sa dooma nga ca kaw gaynde mel ni moom mbokk ci sa dooma nga ca kaw gaynde ga bu yóbboo nga dem lijjanti ko jigéen ji génn njureel dab ko mu jël musóoram takk ci ndiggam song gaynde gi waaxu ba ñëw këf doom ji bàyyi saaxu nee na mu dellu ak doom ji ci biir néeg bi nag mere jëkkër ji jëkkër ji bëgg a juboo am nag <laughs> bàyyi saaxu nee na mu téye liir bi yée sa yaay ñi me gaynde <laughs> man loolu du la ci muccal de <laughs> ndax bëgg a juboo rek bët setagul mere nañ ko mu bëgg juboo nekk di tam-tame xale ba <laughs> sa sa yaay ñi ma gaynde <laughs> ma ne ko du sotti bu njëkk ba nga waroon a génn Aline nag melul ni woon kooka Aline dafa ñime woon lu mu song rek bu daggul du bàyyi Seydina Aline taxaw am ñu daw sukk ci wetu nabi jébbalu ci Sayyiduna Muhammad am ñu taxaw nangoowul ñëw ku ci àllin song rekk benn jaasi dal ba balaa moo ñetteel rekk nga ne bàyyi ma damay tuubi ji may ma kooko daw tuubi ji ña nanguwul tuub ñëpp àllin rey leen keroog la defar xaybar gotto googa ñëpp génn am ñu topp sayiduna àllin ñoom ñëpp ñu ànd mu pàng leen ñu wuti ji sayiduna muhammad jambaru fàq tëdd la sëriñ cheikh mi dégg waxi nit nag wax na ca dara jàmbaaru fàq tëdd ah mu ne baat bi daal war nañ ko ko firil xam naa bu paree sang bi dimbali ñu ci man déggumay wolof lool waaw jàmbaaru fàq tëdd waaw ah. ah. waaw sama xelama réer li ci sëriñ seex waxta bëgguma nettali lu mu waxut looloo tax waaye wax na ca wax ju doy waar waaw waaye Seydina Alin noonu la meloon Alin ibnu Abi Talib karamallahu wajaha daan na nekk ci xare moom Sayyiduna Alin mu war fasam ba noppi tong ci nit moom Alin jaasi yéefar yi du ko laal du laal ki mu tong te yëpp moo koy moytul waa ji ku not nit ñi la mënul fayu muy wut pexe yu muy fayoo amu ko xare boobu keroog ba mu amee yonent bi dafa ne ñaari xale yi koo koy Abu Jahlin keroog ba ñuy dem kenn ki ci kanamu fas bi la jaaree keneen ki jaaree ci ginnaaw fas bi bi ñuy àgg ci abu jaxlin ka ca kanam moo dóor jaasi muy dellu ci ginnaaw xale bi ci ginnaaw delloo kook jaasi abu jaxlin jóge ci kaw fas bi di daanu ci suuf booba àllin bokk na ci ñi leen jox xalaat biñ ko war a reyee bi mu daanoo ci suuf nekk xare bi jeex saxaaba boobu abu jaxlin pesoon mu ñëw fekkeewul xare bi mu ne yonent bi man daal li ma fekkeewul xare bi metti na ma yonent bi ne ko duggal ci biir blessure yi ku jekkiwul nga jekkali ko <laughs> waajey dox ba jege ak abu jaxlin mi ko pesoon te deewagul mu tëdd ci suuf waa jël jaaseem teg ko ci ndong li di rëdd ndànk jëm ca tànke xam naa ku mën mbugal la mu boole ci béyit nekk wa yowmal mazlumi ala zalimi asaddu min yowmi zalimi alal mazlum mu ne bisu fayu ndaka moo gën a metti bisub def keroog ba nga koy def am nga ci ndam bu ne waaye tey yaa ngi tëdd mënoo jóg wa yowmal mazlumi ala a asaddu min yowmi zalimi alal mazlum mbokk yi ngeen bal ñu xàq ñu gàttal Seydina Alin foofu eh, maa ngi koy wax léegi bi may tijji ma ne làmma ñu sang bi moo gën a jotale pour jàllale leen ci gàmmu gi mbégte bi mu ci am ak ni mu tegoo ci yoon ak ni mu mel tabarak law làmmañam moo ci gën a jottale jërëjëf jot làmmañam moo gën a jottale pour jàll la ko suñu làmmañ looloo tax sànq mën a leen nañ bàyyi ba mu ñëw dont gërëm nañu moom mu yeggal yi ci des yépp te comme dañoo téyandi woon rajabe pour bu ñëwee ñu jox ko ko tabaarakallaahu yegg si nag jàmm sang bi ñoo ngi lay ziar baax ay dara jox la sa wàccuwaay ñaanal la yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la fi yàlla yàggal ngay jiitu ñuy topp ci sa ginnaaw yal na la fi yàlla yàggal ngay jiitu ñuy topp ci sa ginnaaw ci barke Sayyiduna Muhammad di la sagoo fu ne nekk fa tabaarakallaahu ndax ni nga mel ci ñun yal na yàlla defal la jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu